Eh, waaye loolu mooy yiw loolu mooy yiw wa itam loolu nun mooy sunub soo waaw kay ma macha allah moo taxan ñu deman Tiwaawan dem Medina Baay eh, dem Jaasaan dañ ko tabaarakallaahu liggéey ca liggéey yu rëy nag macha allah yal na yàlla fay nu ko eh, fayaale ko mboolem jullit ñi barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabaarakallaahu mbokk yi ma ngi noonu xam naa Yacine Demba na mën naa la ci 18 taal bi noo ngi lay siyaar bu baax Yacine Demba nag maa ngi waaj loo xam ni boo muy dama lay dama lay parrainé waaw waaw ak groupe sallallahu ala Muhammad bi yor nga xam ni ci RFM la taxawee Alaaji Assane Gueye mooy première parrainage bi ndax fii la soso te groupe bi daanaka deux cent et quelques personnes nga ciy waaj dañuy waaje conférence inshallah le 10 décembre lu sa Pape Aada nu koy defal ah déet tubay paate képp ci boole laa koy def kat dinaa ci bi xool dama fi jël benn émission boo xam ne <laughs> damay xëy suba ba ngoon di wax ci conférence bi <laughs> bal bi tàkk mu di yàq naa Binta Binta Gueye dina ñëw fii ma ala ma laaj ñu njaga ah, ma ne ko su boobaa nag dama koy def ku sa xaju bay jur rek ku te neex tànn mu jeex bal bi takk waaw. Euh, tabaarakallaahu tey nag Yacine damaa kontaan sama xol bi dafa sedd ndax xam nga sunu xarit ba surprise bi laa koy may tey muy borom anniversaire bi. daarul habibi سواها دار الحبيب قلوبنا سواها سهواها دار الحبيب قلوبنا سواها دار الحبيب قلوبنا سواها دار الحبيب قلوبنا سواها waaw kay loolu nag ki ko moom nit ku baax ko baax koo kii nga xam ni kenn la ci nun tabaarakallaahu eh, nga xam ni yàgg nañoo tudd baaxam te dara xewut xanaa xamoon ni Sénégal Yacine Demba bu ñu doon wax wax mbaaxi gars yi balaa dara xew ci lay baax nit booy waxu mbaaxam dangay ngay bàyyi balaa dara xew nga waxu mbaaxam waaye eh, mbir xew wala ñu jox la ngay doog a waxu baax baaxug waa ji taxut ngay wax lañu la bokkal moo tax ngay waxuk baaxam sama xarit ba ndeysaan Alaaji Fàllu Jóob daa daana ma ko wax daana naa ñii seen seen ngërëm yitteelu ma ma ni ko lu tax mu ni ma ngërëmal yàlla lay xaar mu ni ma damay joxe ñu doog maa ñu doog maa ñaanal <laughs> mu ni ma kon loolu kay amatul sens waaw léegi nit ki da nga koy ñaanal avant muy avant muy lay avant mu lay jox waaw bu ko defee mu am sens waaw te nee boo ko koy jox boo koy ñaanal itam bu bu mu jox la mu jox la bu mu tax nga ñaanal ko da nga koy ñaanal naturellement rek tabaarakallaahu kon loolu am na solo sunu xarit ba euh, alaaji maaraaje moom la ñuy ziyaare nii di ko ñaanal yàlla ci bisu anniversaire bi xam nga day anniversaire euh, anniversaire bi xam nga ko ma ko dijjee madame Dieng <laughs> xam naa turwa tey dinaa ko ja dinaa ko dinaa ko ziyaare lépp madame Dieng bu alaaji maaraaje moom lay jox ziyaar bi soppay Seydina Mohamed boobu tey jii sunu waaju baax jooju di def anniversaire xaritub Serigne Maodo si boobu xaritub El Hadj Abdou Aziz boobu waaye xaritub nit ñu baax ñëpp xaritub waa Njaareem dafa am ay nit yi qualité yoo xam ne yow xanaa xamoo ni qualité moo gën quantité qualité te nit daa war a am qualité fi mu ne du alal qualité du xaalis bu bari nag du yii de ndax nit am na xaalis ba taay mënut a jot ci njaga seek li njagay ñàkk fayda ñàkk fayda nit am na alal ba taay boo woo njaga njaga dóor la ca xeer yi. nit nit ñak ñak alal lu mu soxla ma defal ko motax khalis dañ ko objet la objet la boo xam jikko jo xamni mo moo ngi ci nit ki bu bëgg bo bëggee tagat nit ki tagat ko ya koy momal sabab du alal lolé la sëñ bay jaxate waaye sëñ tubaa ni ko mbakke yaa yeewu yaa mën a yeewus gor ba du dem teraanga nga yeewes gor pinti panta nganu <laughs> xam nga pinti panta moy jatang teunk moy teunk ba nupi jatang loolu ñi ñu yor fas yi ci àll yi ñoo koy xam akay ah, ma ngoog Yacine Demba kon daal tey xam naa ñebbe indi defe naa ma ngi ci suuf maaraajal jeen laa ma ñebbe laa am di mom laa bay ren sama ñebbe ja maara déem si ñebbe bàyyi ngañ laa bay yoxay jenn la rek <laughs> bu bu ñuul bi ñebbe bu ñuul bi ñebbe bu gi bu giri bi waaw mom laa bay bàyyi bàyyi ngañ ñor na bu ko defee alaaji maara euh, yàlla na yàlla defal la nga dund ba doyal يالنا يالا ديفال لا ني يالا اري اسمان يالنا لا يالا اري نونو ني يالا باركي لا يالنا لا يالا باركي لا ني يالا خيويلي گيت يالنا لا يالا خيويلي نيت كو باخ لا ام كاليتي لا وا كاي ام كاليتي لا باركي يونت بي كاليتي مو جيفه تمارا دا فام كاليتي دورتكم بيضا اخالصه ترى فعليك ان تفعلها فتراها كلنا سواء دار الحبيب كلنا سواء فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها دار حبيبي قلوبنا تحواها دار حبيبي والقلب قد سكن اضطراب لهيبه لما رأى ما في البقاع سواها لا يا حبيبي قلوبنا تحواها لا يا حبيبي قلوبنا تحواها كل الروائح قد زكت من طيبها فجميعها طابت لطيب سباها waaw kay ma kon uh, sunu xarit bi alaaji maaraaje ci anniversaire bi yàlla la ci yàlla defal gudd fan gu yaatoo yaatu gu taxaw taxaw barki bi alayhi salaatu wa salaam maa la ci may ba alaaji bàyyi alaaji Abdul Aziz boobu ayna al misku min nafaxatiha mal misku illa jifatun دار حبيبي قرونا دعوى دار حبيبي قلوبنا دعوى لا تحسب المسلم waaw kay kon mbokk yi ma ngi noonu euh, borom anniversaire baa ngi noonu xam naa léegi ci kanam nag Yacine Demba dinañ ànd ak euh, ñuy ñoo xam ne suñuy bokk yoo xam ne dañuy def ay événement euh, sëñ Aline Souran mm, Ali Ali Aline Sànqe bu Alaaji Ahmed Sànqe Alaaji Ahmed Sànqe xaman nga ko mooy paa bi daan ànd ak paa Moustapha Guèye te nekkoon fële ca RTS waaw góor gu baax gu màgg googee ca borom xam-xam bu leer ba dafa am benn kuréel bu jóg di delloo mag ñooñu njukkal te duñ fi jógee gun waaw di leen di leen di leen delloo njukkal di leen ñaanal ci ay bis ñu bëgg a wu nag Aline Sànqe laa jël doom ji pour que ñu mu wax ñu taxawaay boobu yitte ji incha allah bu ñu noppee beneen affaire laay defaat tubayi paate képp ci boole te sama maam la ñuy ñaanal samay maam yi ma coiffé ca Mérina Sàmm léegi nag ma bëgg leen a jël ñoom itam ñu ñu mus ci <laughs> incha allah <laughs> kon ci kanam

Yacine Demba nee na ma yow de bàyyi nga kii bi bàyyi nga bàyyi nga conseil bi waa conseil bàyyi naa ko <laughs> dañ ma embauché wut kat ñu defar seen gouvernement ba yeggal dugaluñ ma ci ma toog. nattu jaam ñi seeni jëf yàlla yaay ci nu moom laa yaay ci dinaari maamu laay nii duniyaa du kër bu leen ko tee amul xarit bu sax jarul werante ngir saxul waraate kaat la àddina ku def li yàlla yàlla bala say bàkkaar àddina bi ku naw sa jëf ba def ko kër waaw kay euh, mbokk yi ma ngi noonu euh, nu àndandoo ak yéen rek xam naa ni di xaarandoo mbokk yi nga xam ni ñoo ngi ñëw incha allah di leen xaar ci 88 628 14 14 ci kanam Yacine Demba di ziar nag alaaj sëñ Mbacke Ndiaye moom temps yi dafa raar maa ngi di gaay yëpp di ko laajte ci rajo yi waaye nag noonu la xam nga nit day toog ba yàgg fépp nga ne xam moom loolu daa baaxut ci nit mbëtt mu dul teg yu yoon ndaanaan lu dul wuuteeg mbëtt mu dul teg yu yoon ñoo yam du ñu tàggoog naka la yaram yu fanaane <laughs> moo tax di moytu yenn saay da ciy baax dal bàyyi yëf yi jàll après nga doog a dellu siwaat tabaarkalla yal na yàlla dolli ndam te xam nga moom daa nekk ca waajtaayu jël réew mi yal na ko ko yàlla jox ak ko man yàlla man loolu asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah waaw cheikh bi allo ah, kooku euh, alaaji alaaji Ndiaga kii Jóob RFM lañ ko wax waa jóob di eh, noo lay siyaar bu baax a baax. di la siyaar bu baax a baax di leen ndokkale ci weeru màgg wi. ndeysaan bi rafet lu seen liggéey tamit ci weer wi li ngeen ci li ngeen ci taxawee ci gàmmu gi. alhamdulilah. ci gàmmu gi Tiwaawoon ak gi tamit. Mhm. Kaolack ak uh, Ndiassane. ndeysaan. rafet la ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax. di leen ñaanal uh, ajuma yi ajuma yi jàmm rek ñu fekk ko at yu bëree bëree bëri. rafetlu bu baax a baax liggéeyu liggéeyu RFM. Mm-hmm. Eh, di siyaare waa génération Futurs Médias yëpp rek ci njiital président El Hadj Diouf Sopra Ba koy siyaare bu baax rek ak ñëpp rek auditeurs yi RFM yëpp rek auditeurs yi RFM di leen ñaanal jàmm baax a baax ci àjjuma di siyaare soppe yi sëñ Maam Moor yi tamit baax a baax di leen ñaanal jàmm ci àjjuma tabaarkalla jërëjëf waa kay maa ngi noonu yal na yàlla doole ndam xam naa sama gars yi dañ leen a jotagul su ko defee Thierno Seck la ñu bëgg a xaar rek mu ñëw moom itam ñu àndandoo ci liggéey bi incha allahu taala waaye Yacine Demba am na ko dafa ca waa koy tawarkalla waa koy tawarkalla kon ma ngi noonu xam naa ligne ba moo moo normalagul maam Alassane Laye xaaral ma dem xooli Mor mu Serigne Cheikh Béthio ma forma yaasin daawul eey mu jimbul mam Seex Ibrahima faalooy coow li coow li yow laa ngay ma dégg ndéem ba seen ma farma yaasin daawul eey mi jimbul maam Seex Ibrahima Faaloo ñi coow li la fu ma jar way la fu ma jar kañ la mbëggeel gi ma am ci yow ëpp na ba tuuroo la ilaha illallah la sunu maam Seex Faal ñi doo seen moroom ma jaar woy la ma jaar kañ la mbëggeel gi ma am ci tabaarakallaahu euh, mbokk yi ñu ñëwaat nag ci euh, liggéey bi rek tabaarakallaahu xaaral ma dem xooli ba xam sama waa ma kër maam ya alaaji Thierno Seck asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, waaw Cheikh Seck maa ngi lay ziar Seck. jërëjëf Seck Seck. dama lay bàyyi rek ci lu gàtt ñu ñëw ci bis bi kañ lay doon ak fu koy defee ak lu tax ngeen koy def. waaw waaw waaw. waaw mhm. bis bi day bisu ñaanal maam yi la. Mhm. ñu koy defee suba le allo euh, waaw. waaw waaw nga ni ñoo ngi koy def suba. le 22 ca Mirina Samb. Mhm, Mirina Samb fu mu ne. mi ngi diggante Ngaaxam. Mhm. Tofi. Mhm. Siin. Sanc. fu mu gën a jege rek fu mu gën a jege. Sanc sëñ Basiir si ngaay mi diggante ngaay mi xëy jogo. ah jogo daal la gën a jege. <laughs> waaw waaw tabarkalla. <laughs> Euh, naka lañ koy defee njàngum alxuraan wala nangam nangam wala. waa njàngum alxuraan la def. ñaanal mm-hmm. ci. dajale ci fëy bopp yëpp. Mm-hmm. Euh, ñu xamante waxtaan. Mm-hmm. ci ak bokk. Euh, ñaanalante jàmm. Euh, ba déwén ak jàmm. loolu daal mooy sabab bi nga xamante ni loolu la tax te mag ña nag la sàmbalee woon nag. macha allah. mag ñi ñoo ko daan def di wër. bu nit ne ñu fekk la fa. ndeysaan te luqali bokk yëpp. ndeysaan. biñ demee ba xëy mag ñi nag dem nañu. ñun ñi fi def ñun bëri. ah ñooñu nag nañu xalaat daal. Mhm. ñu dëkk suñ te dëkk maam ba nga say maam armée yooyu lañ nekk. tabaarkalla. at mu jot saa bu ñu gàmmoo. Hmm. sëñ bi jëm ci gàmm ga. Mhm. ñu daje fa dëkk ba. Mhm. woo waa sëriñ nekk ak waa ak bokk yëpp daje fa. ñu yendoo jàng alxuraan ak def istifaar bi. lépp ñu yéene ko maam bu noppi waxtaan ci bokk. tabaarkalla tabaarkalla. waaw lii daal mooy sabab bi yow moom ci bis boobu nga bokk. waaw macha allah moom kay. te muy famille bi nag famille cekkeen la. ndeysaan. waaye maam yi nga xamante ñoo euh, ñoom ñoom ñoo ko sosoo. Mm-hmm. Euh, seeni sët. Mm-hmm. ñoo dajaloo fii ne cekkeen yi bari na. waaw. waaye sa njaga. waaw. ñi sant sekk ñëpp ñoo bokk mel maam. dëgg la. ñi sant sekk ñëpp ñu xam ku seen maama. waaw. Abdoulaye ibnu Masood. men na. moom ak ma. tabaarkalla kon yàlla nañ ci yàlla dinañ ko yaatal suba daal lay doon ci Médina Samb incha booru jogo googu. suba teel gi ngeen ki lañ koy xëy door ak alxuraan. waaw bu ñu alxuraan lañu xëy doore ko. Mm-hmm. ci imaam Mamor Samb. Mm-hmm. ak sëñ mm-hmm. imaamu Siin. tabaarkalla. waaye nag waa kër sëñ Daaru Diouf. ak waa kër sëñ uh, muy waa kër sëñ ak waa kër Cheikh Sadio Mbaye. ak waa kër sëñ Madina Bey. waa tufi ñoom ñàpp sëriñ si mhm. eh, ñoo koy teewe ñoo jiite ñooy eh, jiite kaayil ba jërëjëf jazakallah kon ñu waaj ko rek kon ñu waaj ko euh, Seck jërëjëf waa kay ma ngi noonu Alaaji noo sekk di borom xam-xam daañu àndaat ak moom ci yeneen waxtaan yoo xamee ni daañ ko séq ak moom incha allah ndax sunu mbokk sunu maga sunu ndijaaye sunu lépp la <laughs> tabarkala xaaral ma dem seeti sëñ Alim Sànq asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi sànq maa ngi lay ziar waaye sekk sekk ñu ngi delloo ziyaara bu baax. alaaji Alioune Sànq di sëtu alaaji Aale Gueye ca Ngaay. bu baax waaye sekk jërëjëf. <laughs> non loolu laa lay jëkk a ba pare. wallaay wallaay ndeysaan wallaahi. ndeysaan ndeysaan. ñu ngi eh, a ngi ci maanaam góor gi dañu dañu ko xool xam nga Sénégal li ñuy def dafa am solo da ñii léegi li ñu xalaat mooy nit ki. bu dee mm-hmm. dund di defu baax boo koy delloo njukkal foofa ngay doore. wallaahi wallaahi ban kuréel ñoo sos loolu kañ lañ koy def ak nuñ koy defe waaw kuréel asalaamaaleykum wa rahmatullah xaj njëg ñëpp ñëpp ñuy déglu ñu leen nuyu di leen ziyaara di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante suñu borom ji julli si yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam. association jeunesse musulmane. pour le développement du Sénégal bi nga ko xam si AJMDS. ñoom fa tabaarakallahu seen président di Serigne Moustapha Sy Moudir bu président fédération des associations islamiques mooy seen président d'honneur. ñoom ñoo am taxawaay boobu comme li nga wax rek nit ki buy dund. ki nga koy sagal mu xam ne ah ñii kat fa tabarakallahu ñoom li muy liggéey wala li muy liggéey si diine ji liggéey ko ci lislaam gi liggéey ko ci réew mi. Hmm. am na ñoo xamante ne ne ngir sagal ko loolu loolu fa tabarakallahu lu am solo la. Hmm. ah ñoom nag yaakaar naa bii mooy seen huitième édition defal nañ ko ñu bëri ay kilifa yu bëri fa tabarakallahu ren nag ñoom bi ñu seen biir. waaw ak ci xalaatu sëriñ Moustapha Sy mudir bu président fédération des associations islamiques. Hmm. ñoom nag ñu ne fa tabarakallahu ren le gi leen tànn ngir sargal ko. ndeysaan suba incha allahu taala à partir de 15 heures ci l'Institut islamique bu Dakar. mu ne nar a nekk ay thèmes yoo xamante fa tabaarakallahu dina tax ñi gën a xam góor gi. Hmm. gën a xam jaar-jaaram gën a xam li nga xamante ne liggéey na ko si lislaam. ndeysaan bi fa tabaarakallahu mbokk ñoo koy ñoo ñoo ñoo koy traité mu nekk ay panélistes yoo xamante ne cinq thèmes lay doon. képp ku fa ñëw rek incha allahu taala lépp loo xamuloon si alxaaji Mouhamed Sànqe di nga ko xam ci lislaam taxawaayam ci diine taxawaayam ci wàllu daawa bi. ñu hmm. may na fa 40 lépp mu def ko ci daawa def ko ci def def ko ci lislaam ah bis bi nag nekk bisu waa jolof hmm. ndax góor gi képp koo xam xam ne jolof la cosaanoo dëkk bu ñuy wax cànk la juddoo hmm. ak di ko di si woo tamit askanu tax su démba bu na si gépp nga xamante ne côté kër yaayam fa tabarakallahu ñooñ la di si woo famille njarmeew gépp li hmm. ci woo tamit Sénégal gépp bàyyi wuñ kenn nga xamante ne mooy association islamique yi di si woo jullit yi hmm. ndax tey boo déggee ñu ne fédération des associations islamiques hmm. nga xamante ne Serigne Moustapha Sy tey ji moo nekk ci bopp bi nga xam Serigne Abdoul Aziz Al Amin bokk na si nga xamante ne ñoo ko taxawal Serigne Pape Moustapha Cissé bu Pire ku ci mel ni suñu wayjur boobu nekkoon Jolof ñu koy wax Alxaaji Daawda Caan nga xamante ne ñëpp xamoon nañ taxawam ci école boobu di tafsir Mbuscaan ñooñu fa tabarakallahu ñoo amoon taxawaay nga xamante ne yi nga xamante ne mooy fédération des associations islamiques hmm. fekk suñu wayjur yi njibisi ku si mel alxaaji Moustapha Gueye ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën a dolli yërmandeem fa tabaarakallahu bi fi jógee bàyyiwut bu yàggul hmm. nga xamante ne moo moo góor gi sama wayjur ku nekk tuddee na sa morom doom ngir kóllale ñu yàgg ànd liggéey ci lislaam ànd liggéey ci diine ji ñoom nag bi ñu njibisee na lañ a doole fédération bi hmm. tey jii même brevet ne mooy mooy ba accès tey réew mi ñoom fa tabarakallah am nañ ci taxawaay bu rëy ak bag beeg lépp fa tabarakallahu hmm. ñooñu nag fédération boobu nag euh, suñ pa Pa Moustapha Sy mudir am hmm. taxawaay boobu ren ne insha allahu taala góor gi la ñuy sargal alxaaji Mouhamad Sànke hmm. ci liggéeyam ci lislaam liggéeyam ci diine def ko ci daawa bi nga xamante ne dundam yëpp yëpp yëpp képp ko koo xàmmee la xam ne ci toolu lislaam nga ko xàmmee temi nag waaw fa taba xam naa ma lim temi nga xamante ne moom la ñuy kii rek pour mën a jeexal foofu noonu euh, thème bu njëkk bi mi ngi mi ngi naan kii imaam Mouhamad Sànke Mhm. boobu ku koy animé mooy imam Bachir Sankey di taawu góor gi fa tabarakallahu moom moo koy animé. Mhm. Ah, thème 2 bi mooy relation de imam El Hadj Mouhamad Hmm. avec les familles religieuses animées par hmm. imam Aboubacar Sànqe xamante ne alaaka bi nga xamante ne am na ko ak këru diine yëpp di mbokk këru diine yëpp kooku ku animé mooy imam Aboubacar Sànqe hmm. thème 3 bi imam alhaaji Mouhamad Sànqe un régulateur social animé par docteur Babacar Camara di ci alhaaj bu alhaaji Daouda Camara fa tabarakallahu moom mooy animé animé 17 heures thème 4 bi imam alhaaji Mouhamad Sànqe sur la protection de l'islam et de la langue arabe animée par imam Khalifa Zi nga xamante ne. fa tabarakallahu moom tamit. doo doomu nijaay góor gi la léppam la fa tabaarakallah. macha ah, allah waaw bis bis thème cinq bi nga xamante ne mooy fin bi fa la jeexee. Hmm. mooy imam El Hadj Mouhamed Sanke et la relation internationale. Hmm. animé par imam Oumar Seye nga xamante góor gi amoon na alaaka yu bëri relation daan def ay tournée yu bëri daan def ay colloque ci àdduna bi fu ne mu def colloque. Hmm. jiite yu mel noonu ci ay xarakatul islamiya fa tabaarakallahu lépp loo xamante lépp la jëm ci wàllu liggéey lislaam ak liggéey diine. muy góor gi fexe na ba ay doomam. wallaay ndeysaan ñoo ñoo la ñu def ñoom la ñu def ñiy waxtaan waxtaan wi. wallaay loolu nag bu jàngalul ay doomam defe naa ni bu kenn du leen choisir ni leen kaay leen wax ci nangam. macha allah da ñoom ñoo waaw modérateur bi na la nekk Alxaaji Alioune Si. ndeysaan nee na moom moo na nekk modérateur. yow yow nag mbaa yaay tàmbaleeg alxuraan. ah incha allahu taala moom nga lépp. yow dañu macha ci ci waaye waaye bés bi dafa am pare nag bés bi dafa am pare ak marraine. waaw ah, gaawal ko parrain bi al képp xam ne président Moustapha Niass ñëpp xamoon wóolu ak ak góor gi fa tabarakallah ba tey yi nii dara da président assemblée nationale ba waaw mu nekkoon ancien ancien président assemblée nationale Moustapha Niass moom nekk koo xam ne tu l'islam ne ku baax la wax dëgg yàlla kóolóoleem ak góor gi xam nañ ci lu bëree bëri hmm. ah marraine bi bi ngi nekk Seyda Aji Binta nga xamante ne fa tabarakallah moom Binta Thiaw Seyda Aji Binta Thiaw macha allah macha allah waaw waaw xam borom internat yi nga xamante ne li muy liggéey ci alxuraan macha allah xam nañ ko waaw mhm. suñu invité d'honneur tamit incha allahu taala alhaaji Abdoulaye Dia bu Sénico fa tabarakallah moom tamit bés bi mu kontaan ci lool ku bëgg góor gi la macha allah yàgg ko suivre ci lu bëree bëri bëri. Euh, waxtu waa ngi noonu yal na yàlla dolli ndam ba suba jam ñaari bis yooyu incha allah waaye dañuy dem rek ci niñ ko waxee woon animation bi di ñaanal nag suñu mag ju baax ji nga xam ne moo génn àddina bër ki démb rek ci gàmm gi muy Momadou sekk euh, Thion Mbaye euh, bu Alaaji Maar sama ndijaay tabaarakallaaw ak nanu mi mu àndaloon def soog bi tabaarakallaaw ba ñoom ñaar ñëpp génn àddina yal dëgg dëgg sekk nga xam ni keroog dajam ba kilifa yi Sénégal a fa daje yëpp a fa daje waa waa waa port a fa daje tabaarakallaahu mu mitti lool mitti lool waaye nag yàlla waaye yàlla kenn mënut ci moom yaram Mbacke sëriñ maam moor Mbacke yaram ne Mbacke Mbacke bi <laughs> sëriñ bi léeg-léeg da ngay xëy bëgg si fekk mu xëy si <laughs> எங்க மாமை சிரிக்குமன் కాలమని ఇంకా కాలమని భూమికాయ చూట్టుకున్నది tubarkala kon nag 88 628 14 14 mën nañ ci jaar ziarante ñaanalante yàlla jàmm sama xarit boobu nga xam ne moom doon ñaanal muy alaaji maaraaji tabarakalaw yal na dundal ko kok. na yàlla ko yal na yàlla ko eh, ndax baax bi mu baax te du triché waa kii moy pam mor di ci ziar waa Ceneba yëpp yëpp yëpp ndax kera bi ñuy waaj jàmm rek fa laa julli jee ajjuma allah tey jii la war a sax ci 14 ci 14 heures jëm 15 14 heures 30 ci TFM tey nag ñoo nga fas dem Touba Kane fa la ñuy jullee ji allah Touba Kane cay booru ngaay mexe incha allah ngeen ñaanal nu yàlla yéen a nu ba ñuy dem Ndofane 88 14 14 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم mbokk mi waa kay dana 14 14 88 628 14 14 88 628 14 15 خلينا ويا لما la ki may yónnee message naa ma waaw ñebbe ci loo ci xalaat <laughs> Amina Jaw naa Jaw dama am beneen jaween yaa Pa Jaw nee ko dama am beneen jaween boo xam ne yaayi Abbas Fall men <laughs> honorable député maire Jaw <laughs> maire Jaw de ma nga seex mburu ma di ma woona ah, ma ne ko maire yàbbi li nga seex te wax ak man nag yow tam lay ndeysaan ñoo ngi koy ziar bu baax a baax yaayu honorable Abbas Fall xam nga njaween la ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ziare itam ami naa Diaw Mbore di ko jaale way juróom wu tedd woowu génn àddina moom itam Mbore Sarr seen way jur dafa génn àddina 88 628 14 14 defe naa ni moom la ñuy àndee ak yéen tabaarakallaahu ñu ànd ak Cheikh Bou Diop. lu am julli ci taa àndax ku koy wàcc nga. 88 628 Cheikh Bou maa ngi ñëw asalaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay ziar. sëriñ doo fay sa rajo boobu ndax day dellu si waat. ma ne ko doo def sa doo fay sa rajo boobu. non amuma rajo a ngi sama téléphone. maa ngi si jàmm. sant yàlla alhamdulilah. mu lay ziar bu baax di la yàlla doon réseau bi day réseau bi day moom dafa xaw a kii naqari lool. waaw kay. waaw ñu ziar ziar waa RFM bi. ndeysaan. wu tuuti sëriñ. waaw. ñu koy ñaanal guddi fan lool lañu koy mhm. yàlla fooy wootee nii. mooy wootee ah looloo tax mu xaw a réseau bi xaw a naqari. <laughs> tabaarkàlla ziyaaral ma waa Richard Toll yëpp. waa kay ma xam naa réseau bee xaw a naqari 88 628 14 14 sama waa kër yaa mun ni euh, mun na mun ni kunta ndeysaan. ñoo moom ya, Amin ami ya yaa moom loolu joxal aja ya mari ak euh, mbooleem ñi nga xam ne soxna xadi yaa mari ñoom ñëpp maa ngi leen di ziyaara waa kër yaa moom mi kunta ak waa njaasaan yëpp waa bekai naar waa ndànk sanc buuna ngi koy jox mbay mu wul duguna ma wala bekkaay ma jaare ma jaare ko ci mbaaye rek jox ko mbaaye mu joxal ma la ko def <laughs> naa ni loolu waaye jox bu ko joxee mbaaye jot nga ca ci ziyaar bu baax a baax nag sama xarit ba alaaji Lamine Thiam dogo mu baax mi nga xam ni sunu Tiwaawan ja Abdou Aziz Gueye ak doom yu baax yu sama xarit boobu jigal maa ngi koy ziar madame Guèye mu baax mu yiw mi gàmm gi def na ci lu ne Abdou Aziz yow duma la laal duma la wax dara tey <laughs> Guèye ndax xam naa say mbir ndeysaan gàmm gi de li mu def bu ma leen ko waxee ngeen ni loolu kenn ñemewu ko ci àddina Abdou Aziz Guèye mu sëriñ Maodo si asalaamaaleykum aleykum ku baax waa bu baax alhamdulilah kan la. as xuma ku doon ngalam. maa ngi lay ziar as. ah dellu ziar bu baax a nañ bu baax a baax. alhamdulilah macha allah. yaa ngi wax si gàmm gi sama xel dem si monsieur le maire. ndeysaan Sakal Kam. waaw ndeysaan. ah def na lu rafet si gàmm gi dafa dëgg neex yàlla. na daayira yu baax a a baax a baax social bi moom macha allah yal na ko yàlla fay. Hmm, looloo war a am nag. waaw yàlla ko yàlla fay def na daal lu rafet. def na lu rafet daal <laughs> daayira yëpp kontaan nañ. ma ne ko looloo war a am. ah dëgg la loolu dong loolu loolu dong taxan ngeen fal ko kat nag. jërëjëf waaw yal na yàlla fay ñu ñaanal ko bu baax a baax muy taxaw askan wi baax a baax. yal na yàlla dolli. Serigne Mbaye Serigne Mbacke Ndiaye moom wax nag dëgg na yàlla. Hmm. ah moo ko Youssou Ndour reyam. ndeysaan. kenn mësu leen a dégg ak maaraa Mara Dieng kenn mësu leen a dégg ñuy wax safaan. waaw du ñu wax lu ñaaw. waaw ah, jàmm Mm-hmm. moo tax jàmm rek la ñuy am ñu daal yàlla yàlla jërëjëf commune de Sangalkam bi yëpp yal na leen yàlla fay. jërëjëf jërëjëf waa kay magoog tabaarkallaa loolu am na solo wax lu baax dafa am solo de. Mm-hmm. léeg-léeg da gis ci gars yi rajo yeeg télé yeeg internet yi am na ñoo xam ne fi mu ne buzz buzz wax lu bon lañ koy <laughs> ci wax lu bon lañ koy jaare man leen billaay bis bu ngeen ci jotee xam ne li ngeen def amul njariñ asalaamaaleykum. oui asalaamaaleykum wa rahmatulah. honorable maa ngi lay siyaar waaw sëñ Mor ñaaw bu Mbacke bari Oustaz Ndiaga ñu lay nuyu. man damaa bàyyi conseil parce que dañuy fal seen gouvernement tegg ma teg man leen waaw léegi mënoon nañ maa def conseil sax parce que gis naa conseil yoo xam ne bi lay tanewuñ ma. Eh, ñu lay nuyu di di mboolem auditeurs di la indi nuyu ak suñu Abdou Aziz Baara. ndeysaan mu baax ma ak Serigne Abdoul Karim ak Karim ak sëñ Abdou Rafaay ibn Cheikh Mamadou Fadal. ndeysaan mu baax mi. waaw waaw di leen ziar ci ma gàmm gi di ñaan yàlla na yàlla defal jàmm. amiin fekk naa dama ngay ñaanal Mara mais Mara moom ñaanal ko rek ceeb bu bari ak ñebe. <laughs> ndeysaan da ngeen ni moom bu ñu amee ceeb bu bari ak ñebe dutuñu wax dara. ndeysaan ndeysaan yàlla na yàlla def mu teew kay diwoon yu bari moom it. ndeysaan yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér. Hmm. may koy waa groupe yëpp. Hmm. rawatina Sénégal. amiin yaa rabbal di gërëm nag particulièrement nag euh, xalifa généralu Tidiane yi tamit. Babacar Sy Mansour waaw communiqué bi mu def keroog jox ko sama sëriñ mu liir ko. waaw Ndiaga war ngeen a dellu si waat ci discours boobu. incha allah. discours bu am solo la liir keroog. ndeysaan. waaw li ma doon wax semaine bee passé bu ñu wootee nii bu nañ nañu expliqué lan mooy guddi génant bi gis nga keroog salaatu wasalaam waaw wallaahi la asim euh, discours boobu il faut que ñu ñoom Mor Thiam ñu jëllu ci liir ko benn par benn di ko tas jàllale ko ci askanu tas ko parce que lam fa wax ni il faut xabaar yi gën a jàll ñu gën a xam kan mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. ak yan kero la amoon ak yan jukku yu qualité la amoon mm-hmm. qualité yi ñu amoon njaga boobu xaalis amul mais dañu amoon ay qualité ak vertu yoo xam ne mi ngi woon ak ñoom mm-hmm. loolu nag keroog vraiment communiqué bi jàll na mais nañ ko gën a jàllale pour taalibe yi gën kaa xam xam nga moor li yàq adduna bi léegi mooy waaw dañoo transformer li doonoon qualité def ko feneen. mais xoolal loolu. waaw loolu moo indi problème i àdduna bi tey alali àdduna ji rek lañ topp almaalu maalu topp àdduna ba fàtte li la yàlla sant. ndeysaan nga topp àdduna ba fàtte sax say bokk. am na yoo xam ne njaga dañoo topp àdduna ba fàtte seen i bokk. waaw amatuñu bokk amatuñu. am ñu topp àdduna ba fàtte seen ndey ak seen baay seen ndey yaa ngi ca banlieue bu ñoom ñu topp banlieue àdduna bi rek di dem. dem rek il faut que ñu dellu si waat xutba bu rëy rëy la def. ndeysaan ngi lay gërëm bu baax a baax di ko ñaanal nag yàlla Mhm. may ko fanu gudd ànd ak wér jërë ngeen jëf. waaw kay Mor Niang fu noon yi gëstu kon nga gis. fànn bu nekk wax na ca mbir wàcc nga. ciy téere ak xasida yu kenn mënta ci làkku yaaram ak ci wolof wàcc nga. borom arut buxuur ya mu def way nga yëpp. ba fent ay buxuur dinu jox wàcc nga taalif nga fiq laxdariyu yaa ko jël way ko ci ay wolof ba mu jeex wàcc nga wax nga ñu àddina ak ni mu mel way nga ko waxit yowmal qiyaam na mu mel wàcc nga way nga jigéen ci néegub sëy ak jëkkër wax nga ñu doom na muy toppee wàcc nga wax nga xaleel na muy dundeek mag ci kër wax nga magitu waré fi ko war wàcc nga siira yonen bitam lu ca xew wax nga ko ca ak dundam ba demam wàcc nga mawlud ba wote bagri ñaan nga way nga ko gaday ga ak karem yëpp itam nga fet wax nga ñu na mu te fatxu màkka wax nga nu it na mu demee. ndeysaan sëy Cheikh bu moom mi lay ji moo mën a way macha allah yal na yàlla dolli lay ndam 88 628 14 14 asalaamaaleykum mbokk mi allo asalaamaaleykum waa ligne bi moom xanaa daa doon sëñ Assane Niass. مصطفى مدينة وسا قد إليه من مكة على هؤلاء وتقنت بمدحه جنواتا أصبر الإنس من أذك القناة فاتفا إتوسرا قد فسا وفي الأرض سافن جرلا ثم ندع بعد ما سيت القض فهو قد ينجد القريق النداء وطوى الأرض سائر وطموى تئن فوقها لو إسراء في ليلة التي كان للمخ تعرفي على البراق استواء وتلك السيادة القاطع وتلقى من ndeysaan nu ngi ciy ziyaara bu baax a baax waa kër Baye ñas yëpp ñu ñu nekkoon foofu ci kawlax di ci ziyaara bu baax xalifa bu tedd bi sëriñ Maayi di ci ziyaara bu baax njabootam yëpp waaye di ziyaara bu baax a baax nag euh, njabootu imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé suma yaay Adja Fat Samb ñoo ko ciy ziyaara bu baax ajaa Seere maa ngi lay ziyaara bu baax Adja séeréer duñ la fàtte loo yal na yàlla dolli la ndam teraanga ji gis nañu yëpp Futurs Médias gépp kontaan nañu ci ngan gi ci gàmmuwaat bi. ndeysaan. إلى إله وإنسان قال كفر بي وثراء ويدل الورى على لائب توحيد وهو معبة بيداء فبما رغت من آلاء لنا زخرة من إباء مسمى وسجب لؤمنا 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaw ku baax. Oustaz Ndiaga maa ngi lay ziar. kooku. man la Ousmane man maa dellu si waat. Ousmane sa téléphone bi de dafa dafa mel ni da nga takk casque dindi ko. waaw réseau bi moo neexul. mais takkoo casque. déedéet takkuma casque. waa acca bisimilah waaw porta bi nag moo xaw njooga na def yal na yàlla defal la beneen waaw mani allo mani waaw dama leen bëggoon ngeen waxtaan ci réew mi réew mi mu ngi commencé de dini yéen war a ngeen wax ci billaay billaay moom kay da nga naa dollil da nga naa dollil waaye waxtaan kay def nañ ko bay bëgg a li jëm jëmul kër de baykat yi sax nañ allo waaw yow rek lay dégg ñun ñun ñun ñi instant bi dañuy yokk jiw bi sax bu bisaab lañuy bay dañuy yokk pot bi léegi deux mille lay doy bisaab xam nga rek ñu ngay baykat yu ndaw lañ dañuy yokk bisaab dañuy yokk yëpp doy na kay man damay bay pour daan doole daal wante dañuy yokk kii jiw bi jiw bi pot bi deux mille lay daal andaar bi mais mhm. bëggul Macky Sall ñu wàññi lakkul loolu yëpp yàlla baax waaw loolu rek laay wax Macky fekkee mu ngi may dégg. waaw man man lay dégg tabarkàlla ma ngi noonu wala bàjjana gi lay déglu. Adja Marème Faye Sall. madame Beng lañ koy wax rek. waaye maa ngi ziyaar bu baax a baax waa kër sama bàyyi Serigne Ahmadou Ba mu baax mi yal na yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot bi. ziyaar bu baax sama xarit alaaji manar Ba. waaye di ziyaara madame Lika Ba ak Lalla ak Ibrahima. maa ngi leen ciy ziar waaye nag dem ziar nag sama baay ba Alioune Badara Bèye baayu tonton mag Alaaji Alioune Badara maa ngi lay ziar sama waa kër euh, sama baay ba Alaaji Mbay Ja moom Sëriñ Falilu maa ngi koy ñaanalati rek yal na yàlla yeesal yërmandeem Alaaji Mbay Ja waaw kay Moodu Mbuuba ngi noonu Mass mbay Mass mbay bu El Hadj mbay mu maalo maa ngi lay ziyaare lii borom nguraan laa ko siyaare ci siyaare mboolem koo xam ne rek yaa nga nguraan El Hadj Makhtar Seck Seydina Aline Seck ak waa nguraan li yëpp ndeysaan ñooñu ñooy sëriñu El Hadj Assane Fall mi dëkkoon rue 29 baayu Seynabou ndeysaan ak Zofal yal na yàlla yeesal yërmandeem 88 628 14 14 salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw kooku. Alassane Ndiaye maa ngi lay woowee Saint-Louis Alassane Ndiaye mu bàyyi moon mbay góoli góoli. noo ngi lay siyaar Alassane. waaw ñu ngi kontaan si yow de. alhamdulilah yal na yàlla bég. waaw ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax a baax. alhamdulilah. waa xale yeeg mag ñi si yow la ñuy taataane de si yow la ñuy jàngee de barke Sëñ Tuubaa. ah ndeysaan. fi ba pigit angal taal gaay yaa ngi lay bàyyi xel. Ah, ndeysaan. wa ma ngi lay ma ngi lay wowe ndar. waaw. waaw di ñaanal yalla tamit dund gi president bu ko mëne wañu mu wàññi ko bu baaxa baaxa baax a baax. ndeysaan. maanaam dugub ji tamit dekk àll yang koy dekk àll yang koy jàmbat bu baax a baax lool mom lool mom du état lool mom ñu askan wi la waaw ñom nak ñoo wara a góorgóorlu ñu ñoo koy bay ñu ñoo koy yokk vraiment yenn manam 100% mom dañ ko wara xaj ci digg ba léegi wa askan wi la askan wi la du président de ah, ah, président nag moo war a rëgg ndig ndig askan wi hmm waaw am nañ ci yaakaar ndax ndax ndax ndax ndax ndax defe naa ni. loolu mooy seen liggéey. ma ne amees na ci yaakaar na allo loolu mooy seen temps quoi loolu ñu teg ay daan. waa kay sëñ bi waa kay ma ni ko am nañ ci yaakaar ndax euh, premier ministre bi defe naa ni loo loolu la loolu la wax ni euh, loolu mooy priorité. Euh, metti na ñoom xam nañ ko xam nañ ni metti na lool vraiment ndax ñëpp ku wax rek loolu ngay wax. Euh, léeg-léeg da nga dépasse bi dangay ngay joxe ba yàgg da ngay rus nag waaw da ngay joxe la nga daa joxe boo ko dee joxe da dem ba yàgg da ngay rus parce que dañuy dem jënd ci këriñ jënd ci saabu jëndi ci nangam denc ci nangam mu jeex tàkk <laughs> ñu indil la ni la lii ci des léegi nag la ñuy defub ceeb doo xam fu ñu koy jëlee moo tax ma daal di daw ca ca ñebbe ja rek man ni ko daal nañuy fexe di rënd ci ñebbe ji di ci baxal <laughs> di di ci di nu mu tuddati di ci di di ko di ko di ko ñar euh, waaw def ci nambe manees na ko di ndax ñebbe mën naa reer man naa ndékki wax dëgg yàlla <laughs> mën naa reer man naa ndékki moo tax man daal maa nga ci ñebbe rek mun ma wati ñebbe laa koy def rek bu ko ñu def fu ko ñar <laughs> wala jason xam nga ñara ah? <laughs> foofu laay tëje rek ñar moy mooy mooy mooy daaru këntu lay doon këntu waaw waaw bokkul pëtam loolu baabu ma ca xam ay da dangay da baxal rek dégg nga ko noonu dégg nga ko ñebe maar déem si boo nee ci tool yi ba yor yor nga ñaar oh, oh oh Modou bu ma wax dara <laughs> ma ngi noonu kon nag mbokk yi euh, fii lay daal di tàggoo rek incha allah jox leen rendez-vous rek ñaanal leen yàlla jàmm mm, euh, yàlla def ci réew mi jàmm nag te it euh, jàmm ji yàlla na ko yàlla yokk nee naa leen. yi euh, ñuy def nii dégg nga Sénégal daa mel ni ñun 2000 ba léegi ci politique politique politique suba politique politique bu fay rek ñu indi beneen politique politique bu jeex ñu indi beneen politique. loolee nag moo nu sonal moo pour politique bu jeex ak mars bu jeex <laughs> looloo fi am politique bu jeex beneen politique ñëw mars bu jeex beneen mars ñëw. man damaa jëkk baag may nii nag moom lii buñ ko naree wee du nu tàggoog du nu tàggoog prix bu seer waaw moo tax war nañu góorgóorlu ci liggéey bi te ñi dellu liggéey ci àll bi waxan naa fi mbay. am na kay ñu jox ministre mbay mi moom comme comprendre na mbay mi nag na na woote nag joxe ay tool joxe aw jiw waaw président